dina comme ku nekk ñoom ñaar nañ leen bëre leen waay John sinaa ak Libidor jël na ko song na waaye song ba baaxul de waaw waaw waaw waaw na ca génn na ca ca yëla xale bëre leen waay ay waay bëre baaxu góor oxo John Sina ak John Sina Libidor John Sina ak Libidor Libidor jël na ko luy xew Libidor boo jàppee da ngay def action ba du la suruxal John Sina Libidor ndeysaan ñaari mbëri ku ci nekk da ngay tànte sa oho dañoo sonn dañoo jeexal ñoom ñaar Johnsina Libidor Johnsina ak Libidor Johnsina Libidor ba tey seen combat bi metti na Johnsina ak Libidor Johnsina Libidor oho combat bi yàgg na lool John sinaa ak Libidor John Sina Libidor ba tey ña nga ca buux na ko génn saako yi arbitre woon na leen ci biir géew bi arbitre bi suuf la waat na diggante ak Libidor John Sina Libidor John Sina Libidor ba tey ña nga ca diggante John Sina ak Libidor arbitre atte na leen ko demal ardo ardo ardo John Sina ak Liss d'Or ndeysaan ay andaw xale yaa ngi ci digg géew bi diggante John Sina ak Liss d'Or combat bi yàgg na lool. John Sina ak Liss d'Or la jóg. ñaari xale ñu ngi bëri moom de mboolu xonk la féete nii John Sina moo nekk nii. Libidor jàpp na Josina mi ngi dóor ci suuf. mais dara xewagul mi ngi roq nañ ba mi ñoom ñaar. ñaari ndaanaan la te duñu mën a bëri. te kenn nangu ta sa morom dara pour ndax li ñu faral di wax rek kenn bëggul am defet ndax tey lamb ñu ne la lambu espoir la kenn bëggul yóbbaale defet moo tax lu waaye xam yaa ngi def. bis bi moo taaroo noonu. waaw bis moo mel noonu nee naa la bis bi moo mel noonu tey kenn du bëgg a daanu mais nag li père Mass di wax rek ñaari dugg waaye benn génn il faut kenn daanu lamb ji neex daanu kenn daanu wala Mass ayaa ndaw la mu ngi noonu waram atu baale ndeysaan ak Fat Faye yaay Fall tik tik ay eh, jël na daan na ko bi mooy ñaari yoon action bi di am ndeysaan li bi door li door daan na ko soof na tey yàgg waaye combat bi yàgg na lool ay xale dañuy bëree